Papa Sow vendredi 21 février au Stade Marius Ndiaye en direct sur ITV avec des artistes de renommée ngir dugg foofu nag yomb na demal ci sa Play wala ci Google Play nga télécharger Agricash Agricash votre porte-monnaie électronique pour toutes vos transactions sur mobile. la banque agricole. ñoom ñoo génne lu ni mel ngir wala ngeen jot xaalis wala boog ngeen fay ci seen ay facture kon nag noté leen ko face to face Siteu Papa Sow vendredi 21 février au stade Marius Ndiaye en direct sur ITV ay artistes de renommée dinañ fa teew ngir dugg fa nag yomb na demal ci Apple Store wala Google Play nga télécharger Agricash boo ñëwee ca buntu ba nga wane sa portable nga dugg ci biir. waaw xam nga Siteu ba mu ñëwee semaine ba lañu génn wala bi ci topp. moom ñëw na fi CNG ba renouveler la licence am bi ma ñëw indi naa ko Sow moo desoon ndax écurie bu bees bi mu doon bi mu sos moom it euh, li ko waroon def na ko ba it licence am nekk na en loolu moo waral tey ci lañ war a taxaw nag pour mën a promoteur bi jëndoon na licence yàgg na kon ñu ko séq ñëpp daal nekk nañ en loolu moo waral euh, tey ñu war a ñëw pour officialiser combat bi ñu gis ngeen jóg jëm ci bis bu mag. Mhm. Pape Abdou Fall tëgg ko. Siteu di ndaanaan mais jël ki nga xam ne moom it mooy ndeyi ndaanaan muy Papa mhm. jóge ci defet jël mbër mel ne Papa Sow est-ce que ci Siteu. waa xam nga Siteu la ma ko waxoon rek euh, dara mëntu yomb ci moom mënoo di laaj yenn kase yi ba pare di tànn adversaire loolu wax naa ko moom biir néeg kon li ko war rek mooy yokk dooleem xam ne dara mënta yomb. kon munoo daaru seetaat lu woyof naan moom laa bëgg a bëreel et puis beneen bi mooy munoo soxla Papa Sow yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci. munoo soxla Ama Balde yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci. Ama Balde daan Papa ñu jox la Papa ñu ne risque la kon kay ñu ne bi ngay laaj Ama da ngaa sob dégg nga. dégg naa la bu baax. baax na jërëjëf. ñëpp yi def analyse ñu ci bari daan ne Papa ci côté xeex bi moo gën a xeex mën a xeex xeex bu jaar moo gën a gaaw moo gën a vif te moo bëri loolu yow en tant que manager am entraîneur am loo ci yëg. li ma la mën a tënkal mooy jëluñu combat bi pour daanu. buñ ci xalaatoon daanu duñ ko jël xalaat nañu ne dañ cee war a jaar dem witi leneen ba adversaire beneen bi ñu war a jël sax ñu ngi ciy xalaat ak def suñuy jàngat. Hmm. waaw buñ jógee ci komba bi. c'est juste pour won la rek ne la xalaatuñ ci daanu te buñ gëmutoon ne mën nañ cee génn duñ ci dugg donte champion la nag. Euh, sportif la xam nga ku bëre lu jege ay 30 combat miin nga bés ndaanaan la mbër la mu ñëpp respecté. mais daal combat bi ñun am nañ ci yaakaar bu baax te xalaat nañu ne yàlla dinañu ci may ndam. ku xam si te xam ko ci innovation xam ko ci mën bi macha allah. Mhm. Pape Abdou Fall wootee seen daje deuxième daje bi di suba nan ngeen dara dikkee. waaw xam nga nag si te moom. ñoom sax léegi xale yi tooñ ma naan yaay papaay tarkindaa yi mais li ma la ma xamal moom toujours ay mbiram day bette moom xam naa ne daal xam indi na fi doo cent franc indi moom lu ne lay indi bii nag xaw ma ci lu mu ne nag wax dëgg rek moom lu ko yàlla defal la du hasard yéen ngeen tuddee ko le phénomène xëy na suba mu indi beneen slogan loolu moom xaw ma xama mënu cee wax dara xamaguma ci dara daal mm-hmm. waaw permanence ñu bari ñu ne Siteu dafa nekk ci tànku Ama lay roy. Mm. ndax wax nga ko léegi sànq. Mm. nga ni ki bëreeg Papa Sow Papa Sow bëri na ak ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé mm. léegi ñu ne Siteu adversaire yi Papa Sow jël presque day bëri ak ñoom rien que pour mën a ubbi bunt bi pour jot ci Ama Baldé loolu moom moo tax ci tànk Papa Sow lay waaw mais xam nga loolu moom xalaatu nit ñi la rek. mais Siteu ku ne xam na ne mbër la moo xamante ne nii bi mu daanee Malaw Seras bu ngeen fàttali ko 2002 benn émission ne nañ ko jox Lac Rose mën na ko doo ko jël Lac Rose jamono yi mënoo bëreeg moom. bi mu jógee ci Zarko daf ne ma tafaatin laa jël ma ne ko kon say mbokk dal ci man surtout pour woon fitam ak moom moom xalaatam bàyyi fi benn mbër ma ne ko yow boo jëlee tafaatin say mbokk ci moment bii dafa teel kon moo lay wan ne du Ama Baldé rek Siteu gëm na ne moom mbër mu ne war naa bëreeg yow moom gëm-gëm boobu la am kon royu ñu ay Ama Baldé déedéet topp ñu ko buñ làmb boole nag dañuy bëreeg moom Ama champion la euh, du hasard mu dem di xëccoo des arènes kon kooku ku ne boo sañoon bu rek moom ndax dafa bokk ci adversaire yi loolu rek la mais du du pour topp ko mais li wértoor daal ku ñu làmb boolee rek matukaay yi war a jël yëpp danañ ko jël di xaar yàlla may ñu ci ndam ndam nag moom suñu borom a ko yor mais sabablu rek même même même rëbb bi booy rëbb bi da yor fetal yor bal diir tiire yàlla doog a ñëw parce que bul tëdd rek naan yàlla yàlla bay sa tool dooy leen na àdduna tëddeewul loolu da ngay sabablu suñu borom doog a ñëw beneen bi mooy. Mhm. wàllu violence ñu bari dañ ko dëkkee ci camp boobu noonu. Mhm. ndax gis nañ ni comme. camp boobu nan. ka ka tarkindaay daal. day viol c'est-à-dire gëj nañoo bëri te yaa ngi gis violence. noo gis fa laa bëgg ñëw may ma. dañoo bëri de te yaa may ma waaw ndax gis nañu sa combat ak guy gi. seen combat ak guy gi mhm. am na violence. te barki Dembo Ndiaye am na combat boo xamante ni combat Alioune Seye 2 ak ki nga xamante ne moom mooy ñàkk jariñu est-ce que yéen yéen a ngi éviter loolu noonu. Euh, question bi ni nga ko tënkee dama ci àndul da ngaa jël VLA solal na ko mu bëgg nun sol nun loolu laay lànk damay la ma bëgg a dégg mooy violence bi ci arène bi te léeg-léeg sa waa kër yi bu ñu bëree dina am comme ni muy amee ci ñeneen su boobaa nga xam ne da c'est général loolu nag solution la ci ñëpp war a wit yëfi ñëpp la ndax benn bëñ dafa war a fonk weex ñu bëri dañuy dund làmb mais du ñëpp ko bëgg Euh, bi violence bi amee ci àll say ñax jariñu ku ne ngi wax ba sax man boo ci see sortie yi ma def dama naan nañ fàttaliku euh, AS Pikine bi muy dajee Gaza au moins pour tempérer ñu xam ne violence bi ci nawetaan yi fépp la am mais duñ jël làmb ji rek ne violence moo waral sponsor yi daw loolu dañuy wax rek. violence am na ba ci assemblée dañuy xeex ak def lu ne. nañ bàyyi loolu li li am solo nag mooy nañ defaraat toogaay bi xam ne boo ne woon dañuy xeexi kenn du ñëw li muy làmb la sport la nañ ko rafetal mbër mi bu la yàqalee sa làmb xëy suba liggéey moo xam liggéey bi muy yëngu yow nga xëy def lan kon nañ defaraat entourage bi ñiy entouré xale yi képp kuy yàq bul nangu bu jege la ndax làmb nga am bul nangu ñu yàqal la ko loolu conseil bu ñuy jox ñëpp man même bu dul sama waa su ma gisee nit ñi xeex ci tur bi dafay am lu ma naqari ndax man damay dund làmb dama ko bëgg man su ma sañoon benn làmb du yàqu bañ naa ko ba ko làmb dal ci sa kaw gis nga entrepreneur bi doon defar euh, stade Demba Diop Euh, daanañ ko attaqué ci ay émission ba mujj gi day mujj naan Malick Thiandoum sa kii daf may attaqué ndax booba daf ne euh, synthétique bi bu ci mbëri tuusee yàq ci du euh, du dem 10 ans ma ne ko dañ ko war a nangu jox ko keneen contre ma ko mais c'est juste man ku sànni xeer làmb rek ma dal ci sa kaw ndax man pour man mbëri dama leen a jaboote te it nag ku ci ne li nga yaakaar ci làmb da nga ko war a am man làmb dama koy dund bu ma sañoon ko takk ngemb jëriñu kon violence bi man maa ko gën a bu ma sañoon do su làmb jeexee ñuy romb nit ñi di dóor oto yi di këpp sama xol bi day jeex bëgguma mu demee noonu stade Iba Mar da nga daan gis cordonnier yi bu làmb amee ñuy tëj ñuy jëli xeer te ñooñu làmb sax ñu teelu leen làmb jëkkatu leen mais ñiy gàmmoo ñiy raas dem bokkuñu loolu la ñuy def ci nawetaan yi di ko def ci lépp kon moo lay wan raxas la ñu war a def rafetalaat mbir mi yaraat xale yi ñoo xam ne violence bokkul même ci sport même réew mi soxlawu ko loolu moom dama koy ñaawlu Perpix Permax garab bu ñu la nuyoo. Mm-hmm. Euh, sa poulain Siteu. Mm-hmm. mu nekkoon États-Unis doon euh, def foofu li nga xamante ne moom mooy MMA. bi ma mm-hmm. tasee yow laajte la nga ne ma li nga xamante ne moom mooy préparation MMA ak làmb du benn bu ñëwee fii ñun ñoo koy gérer. alors mu jóge ci préparation boobu ñu teg ci ay quelques mois. mu daal di ñëw ci làmb xam nañu bi mu fa nekkoon mu ngi nekkoon ci préparation MMA combat MMA nekk fa woon pour musculation d'ailleurs bi ñu ko gisee état bi bokkut ak par rapport bi mu daan dem di préparer li nga xamante ne moom mooy làmb moment bii nii ndax ci diggante fii ak làmb ji di am dana génnaat ñëwaat wala fii lay toog. waa xam nga dafa jege. gaw ma mu génnaat mais li ma la wax rek MMA foog nga foog nga gaaw foog nga mobile. Hmm. moom sa yaram. ndax sport de combat yëpp la ñu boole def ko benn benn benn benn benn benn kii benn discipline kon moo lay wan ne boo mobilul gaawoo euh, doo ci doo ko doo ko mën a réussir. Mm-hmm. mais nag sama xam-xam bëriwu ci loolu sama xalaatu bopp la rek. Mm-hmm. mais làmb moom xam naa ci tuuti xaw ma ci lu bëri mais xam naa ci tuuti. Mm-hmm. xam naa ne boo wooyofee bu ñu la këfee mën nañ la yegg fu la neexul bala ngaa xalaat ñu daan la moo waral ba nga waxee loolu may la nag fee dafa wooyofoon foog mu jël poids pour mën a taxaw ci tànkam bu ko defee li mu bëgg a liggéey mu liggéey Euh, loolu nag ñu ngi ciy liggéey te xalaat naa ne bu ñu demee bala cinq bu sumee ko danañu xam ne liggéey nañu incha allah. mais ci la di ñaan nag suñu borom ma ñu ci ndam. ci laps de temps bi est-ce que mën na fee diis comme ni nga koy waxee par rapport ak bi muy jógee États-Unis parce que xam nañ ne sportif pour mu jël euh, benn masse musculaire bi du yomb wala bu fekkee jël na ko mën na kaa handicapé ci jour combat. mais bu dee sportif nga xam nga ne liggéey boobu mooy gën a métti sax jël pois mm-hmm. parce que la ngay daw muy bëri loolu doo ko daw fii. li mu doon daw da daan daw lu ëpp 15 kilomètres. fii boo noppaloo wàññi rek da nga jël poids bu dee sportif ko mm-hmm. pour 10 moo gën a yomb. wàññi poids moo gën a jafe. Mm-hmm. jël poids moo gën a moo gën a yomb moo gën a yomb bu dee xam nga dara ci sport. alors muy bëri ak Papa ñu gis ni première face to face bi mm-hmm. Roussel bi xaw na am tuuti respect bi daw na lu bëri seen diggante. tey tàmm nañu di gis Siteu bu ñëwee day tàng indi ay slogan yu bees. supporters yi di jëngu nga xamante ne danañ toog benn 4 mois ci ginnaaw gars yi di wax ci lii Siteu wax dugg na fii génn fee adversaire am li ko toll bii ñu gis ni lépp dafa sedd lu ko waral. waaw bi ñu ko waral xam nga keroog yaa ngi bi ko journaliste yi laajee seen mbokk yi bi ñu ko laajee Siteu mooy leen tey face à face indiwuma dañuy présenté affiche bi. mais bu ñu tollee ci face à lu ngeen ma laaj naa leen ko kon xam naa ne suba. déglu leen ko rek moom borom yi bagage la de. incha allah borom yi bagage la borom yi bagage la. borom yi bagage la. ma ñëwaat tuuti vraiment xeex bi. Mhm. gis nañu Siteu euh, bëri na ak Zoss dóor ko mu daanu. Mhm. Papa bëri ak Zoss daan ko ñaar yoon. Mhm. ci wàllum xeex bi fan ngeen fi toll parce que Papa nekk na adversaire boo xamante ni ci wàllu vivacité ak rapidité nekk na adversaire bu gaaw. waaw Papa mën naa xeex mën naa bëre ñun nag tuuti xeex bi man gëm nañ ko naw nañ ko xalaat na mën nañ ci am ndam mais nangul lañ ko mën a xeexal nangul lañ ko mën a bëri mais ñun li ñu yor doy na sëkk te ñu xalaat na ne dañ ci am na loolu daal ñu tàmm seen mobilisation suba nan ngeen fas yéene ñëwee ak lan ngay wax euh, supporters yi. non Siteu moom xam nga moom waxuma du li ma ko yor mais même euh, taximaan yeeg yëpp dañ naan dañuy yàkkamti mu am combat ndax dañuy liggéey loolu lu ko yàlla defal la et boo seetloo Siteu xam nga da nga tudd yenn mbër yu mag yi ñaan cinquante kaar quarante car mais si te benn kaar du taxaw buntu këram te stade bi da koy duy ba nga jaaxle loolu sunu borom lu mu ko defal la. te it nag euh, mi ngi ci kanam ci kanam tuuti nga xam ne nag euh, moom sax dañu naan ko yalmin yalmin la ko xale tuddee yalmin waaw yalmin mooy borom dëkk bi waaw yalmin waaw xale yalmin la nga koy wax. walaay booree ñu xam ne yalmin ñëw na loolu moom <laughs> bu ñëwee ñu xam ne yalmin ñëw na. waaw euh, Abou Ndour réer moom xam na lu yàlla mi ngi see réer la <laughs> waaw li ci des nag di euh, di woo ñëpp rek ñu defaraat toogaay yi jàpp ci làmb toog naan làmb dee na làmb dee na loolu wax bu yàqu la làmb demande sociale la war a doon mm. ñëpp ci war a dugal seen loxo ndax bu njëkk ba juróom-ñaari écuries wala juróom ñoo am ci Sénégal léegi ngay tudd ay cent et quelques écuries cent cinquante wala cent soixante écuries kon ni nawetaan yi mel loolu la làmb mel kon bu làmb ji mbëri bëriwuñ mën naa yàq lu bëree bari kon na ci ñëpp dugal seen loxo te état ci war a jiitu jërëjëf